ñaata kàngam moo bañ ñuy jugé damay bañ samay bañ ñuy jugé Idriss Seck à défaut Idriss Seck nit kese la bu dee ci parti bi taxawe nan noo xamante ni moom mënul dem fépp yomb la jot moom munul wax ak ñëpp mais yàlla def na ni fu ñu ko war a suppléer dañ ko fay suppléer te it Idriss day dem fan la jëm. non dama ne Idriss day dox ay day dox ay. ah ok ok Idriss kuy kuy kuy mu lay doxal say jëf parce que saa yoo ko woowee def ko. xam nga xam nga xam nga. yow wax le contraire. xam nga Idriss Seck kilifa la Idriss Seck kilifa la. Mhm. kilifa la de Idriss kilifa la. ko ah, ah, am am na ci loo xamante ne du debaat ci moom man Idriss Seck xam ma dëkk. man am naa fi xew-xew bu neex am naa fa bu naqari mais dama ne li ma tënk ci Idrissa Seck du du du inter interrelation yi xam nga lu ma tënk ci Idrissa Seck hmm. gis-gisam ci Sénégal yéeneem ci senegal projet bi mu naal pour senegal looloo ma boole ak Idrissa Seck waaw non c'est-à-dire bi ngay wax dama ne Idrissa Seck nit la bari na lu bari lu ma xam ci jokkalante Idrissa Seck ak ay militants. léegi bu dee yéen même ñoo xamante ne même ñoo xamante ne ci parti bi lañu ñu bokkoon tey ñu dëddu yàlla moom leen. bari na lu bari lu ma xam mais Idrissa Seck nitu sutura la. man sax Idrissa Seck Idrissa Seck bari na lu muy def. ci uh-huh. kenn du ko yëg. moo tax damay bañ. Mm. damay bañ ñuy dugg fenn fi. waaye léegi man sax.